xamoon nan la boroomam amee këram ndax daa leb banque wala lebul banque taqale boo jëm jëm tabax këram ba pare nga ñëw ne ko da koy wañ ciment baa ngi nii ton ciment ñaata la jar fekkee ci àll ñu def day moom fukki junni ak juróom dërëm bu ci tënc nga boori sa fay saret mu yóbbul bu bëggoon location bi ki nag wañ ciment jeeg fer deeg béton bi ñetti usine ciment ñoo fi nekk Mali sax moo ñu gën a yomb si Mato fii ni ñu ko jëlee problème fu ko teg bu ko xëy xëy ne ne damay wàññi location daa mun a nekk booy wàññi location dangay wàññi léegi loo moom waaye loo moomul munoo ci dara te loolu lay jéem munu ci nekk dégg nga day sonal boppam. man li ci sama xalaat bu bëggoon location bi yomb la muy def day wàññi ciment wàññi fer wàññi béton te mën na ko te usine ciment be xur woom ne dañuy dugg dong gas wal ba mokk. saaku bi tonne bi lu mu bu leen neexoon jaay ko 20000 francs mën nañu ba bu ko defoon lu yaas wàññi. impôt baa ngi nii seet yaa ngi ko yokku nga bëgg a wàññi nu mu mun a nekkee na wàññi impôt mm-hmm. boo jëlee loo xam ne kenn xamul nu mu toll nga teg ko ci doomu aadama bi doomu xam ne du bopp dal na wàññi bi ciment ji bi nekk li nga xam ne local lan local la. na ko wañ dégg nga dun baa ngi nee ne da koo wañ wañu ci tuus Macky mm-hmm. Sall daal fii ba daal saa waaj mm-hmm. mu ngi nguuram daal mu ngi ne yàlla nañ ci yàlla dimbali ci moom rek <laughs> arrangé wul ah, arrangé na leen bu ñu wàññee location arrangé na waaye te dul nekk mm-hmm. parce que am na sama kër loo ci mun ah damay defar sama kër mbaa samay mbokk ñëw dund dëkk loo ci mun dama bëgg a dëkkal sama ko loo ci mun da ngay boo mun a def da ngay baax na dedul dem baax na dedul dem fii Sénégal fii première bi dañ ko respecté waaye gis ci fee bi lu dem fen fen fen la dul dem loolu de moom li ma ci mën a wax mooy dama yaakaar ne wax ju yàqu dong lay doon ndax wax lu dul def moom wax ju yàqu la xam nga ni mu koy defee yow fi mu toll biig dong dong biig dong ma wax la jox la benn exemple dégg naa ay xale yu toog ñu ne ñu wax laaj seen borom kër ñu ndax wàññi bi da ko def wala doo ko def xam nga lu xale yi wax ñu ne ku bëgg ñu génne rek laajal loolu comme ni ngeen ko gisee doxante nañ dafa ndeg li nga xam ne mooy le sénégalais laaj leen ay question ci li xam ne mooy problématique bi maanaam dogal yi nga xam ne le président de la république Macky Sall jël na ko ci wàllum location bi donc jël ab décret pour wàññi li nga xam ne mooy location bi donc ñoom nan lañ ko gisee nan lañ ko jàppee nan lañ koy xalaatee aussi nan lañ koy xaare it donc je pense que question yooyu noonu tontu nañ ko le sénégalais tontu nañ ko actuellement nag ñu war a daal xam mooy sama invité sama expert de jour xam ne mooy le président donc des experts immobiliers donc tey moom la ñu dalal ci émission avocat ñu bàyyi ko mu ñëw addu ci li nga xam ne mooy questionnaire bi problématique bi nga xam ne moom la ñu soulever aujourd'hui euh, ngi la donc euh, man maa ngi tudd Mouhamed Lamine Sarr di euh, nekk expert immobilier euh, bokk ci kuréel bu tuddee ordre national des experts du Sénégal nekk aussi président section immobilière ci ordre boobu waaw suñu liggéey mooy mooy saytu mbirum kër saytu valeur kër yi saytu lépp loo xam ne ñu ngi ëmb ci ñu topp ci investissement dans le domaine de l'immobilier merci beaucoup Amadou waaw defe naa euh, impact euh, il faut mu am parce que euh, président Macky Sall effectivement organisé na benn concertation bu mag depuis plusieurs mois boo xam ne ñun suñu kuréel invité woon nañ ko ak yeneen yi nga xam ne ñoo indi ñi nga xam ne ñooy agence immobilière yi maanaam différents acteurs ñu toog daje ak euh, ci ministère du commerce euh, dirigé par euh, Abdou pour ñu toog saytu mbirum loyer yi seet li nga xam ne moo tax mu jafe seet li nga xam ne moo tax mu àgg ñu ko boo xam ne Sénégal yi attatuñu ko ñu jéem a xool yan jumtukaay la ñu mën a am pour faire en sorte que loyer bi baisse arrivé xam ne Sénégal yi dina ko mën a accepté mu nekk nag aussi loo xam ne lu yomb du yomb parce que euh, mu nekk loo xam tamit du yàggale aussi ci dëkk bi et li nga xam ni tànk moo ci jafe-jafe bi mooy cause yi nga xam ni ñoo ko ñoo taxoon loolu am ba léegi cause yooyu ñu ngi fi te tant que cause yooyu gisuñu ci solution définitive li ñu rek moo jël des mesures yoo xam ni peut-être dina mën a permettre pour dans un temps assez limité ñu trouver des solutions solutions yoo xam ne dina mën permettre ñu mën a donc baisser les loyers mhm. ci cadre boobu le gouvernement bi doog jël un décret décret boo xam ne aujourd'hui génn na qui est opposable à tout le monde et décret boobu dina organiser la baisse des loyers suivant les catégories allant de 5 soulager population mu nekk mesure yoo xam ne dañu de réduire les loyers mais derrière loolu il faut ñu jëlaat beneen ñu togaat ci pour mën a gëstuwaat mbir mi xoolaat ñu mën a demee au fond pour maintenant nag les solutions yoo xam ne dina permettre ñu solution yoo xam ne dafa nekk des solutions définitives donc kooku nekk beneen étape nga amul loolu sax mooy li nga xam ni ñu bànkoo nañ ci déggoo ci euh, euh, donte nag euh, mbir mi fallait que tout de suite, peut-être euh, le gouvernement pour peut-être soulager. Euh, loolu aussi peut-être demande boo xam ne kii était très forte parce que ñëpp Sénégal yi ñu war a di xaar pour ñu jël des mesures pour mën a yooyu jël nañ ko euh, loyer bi baissé na léegi nag léegi bi pour man léegi la liggéey bi tàmbali waaw parce que bu ñu bëggee trouver des solutions définitives il faut ñu toogaat yaatal kuréel yi yaatal waxtaan bi gën ko xóotal voilà fexe nag ba léegi nag ñu dem ba nga xam ne gis nañu li nga xam ne mooy mbóot bi nga xam ne moo tax aujourd'hui Dakar kenn mënuñu préserver waaye ñu fexe nag ba trouver ci des solutions yoo xam ne c'est des solutions moom la des solutions pérennes xam parce que loolu nag mooy li nga xam ne moom ñu permettre parce que li ma retenir ci question bi nga posé dañu ne surtout waaw loolu dafay dafay wane ni euh, am na problème du loyer au Sénégal yàlla problème du loyer à Dakar problème bi Dakar la parce que ñëpp ñoo bëgg ñëw Dakar parce que Dakar moo nekk une ville attractive maanaam Dakar dafa am beaucoup d'avantages d' abord pour Sénégalais yi nekk fii di liggéey fii la zone d' activité yi nekk fii la liggéeyukaay yi nekk fii la hôpitaux yi nekk fii la infrastructure yi nekk donc vraiment dafa nekk zone boo xam ni sur plan économique euh, dafay attirer nit ñi pour ñëw di fi installer Dakar aussi nekk une ville boo xam ni Sénégal du moins nekk un pays boo xam ni de plus en plus aussi dafay attirer les investisseurs compte tenu euh, du développement économique euh, l'Afrique en général est devenue attractive pour les investisseurs mais ci biir Sénégal ñu ngi jouer un rôle am un positionnement extrêmement euh, attractif qui fait que maintenant il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent et qui veulent s'installer au Sénégal pour travailler et ñoom urbain de Dakar donc il y a les zones d'activité qui se développent ñi nga xam ne ñu ngi am ay usines yu ñu bëgg terrain ñi nga xam ne ñu bëgg commerce yu ñu bëgg terrain ñi nga xam ne ñu bëgg dëkk yu bëgg terrain et malheureusement Dakar presqu'île la. presqu'île la c'est-à-dire foo dem géej gi nga fay fekk. waaw te géej gi buñ fa waroon tabax problème bi problème du am. malheureusement kenn amaguñu xam-xam pour tabax ci kaw ndox mi. loolu boo amoon rek problème bi réglé tout de suite mais aujourd'hui euh, taxation des réserves foncières c'est-à-dire que en hauteur ay ay yi mu am la population la jeune population qui arrive sur le marché de l'emploi a beaucoup d'efforts à Dakar, les boss travaillent, sont diplômés, ils se marient, ils font un foyer, ils tous accéder à un habitat. Ensuite, beaucoup hub universitaire léegi boo seetee Dakar au niveau du marché ouest africain tous les étudiants viennent ici parce que y a des grandes écoles à Dakar donc day augmenter encore une population estudiantine extrêmement importante. voilà donc euh, tous ces éléments là l'un dans l'autre font que la pression sur le terrain dafay gën a am doole. le terrain n'est pas reproductible reproductible benn yoon bu jeex ba doo alors c'est quoi la solution. aller explorer de nouvelles de nouveaux pôles urbains créer de nouveaux pôles urbains créer de nouvelles zones d'aménagement et créer des des, des zones de d'autres destinations yoo xam ni les gens intérêt à aller se déplacer et ce que je pense que le gouvernement est en train de faire déjà quand tu auras vu qu'au niveau de Diamniadio il y a la DGPU a fait le travail quand même remarquable en aménageant de nouvelles zones, euh, en à péage avec euh, toutes ces la voie de dégagement nord et tout ce qui s'ensuit toute cette zone là yi nga xam ne à l'époque kenn mënu dem aujourd'hui zone yooyu elles deviennent accessibles elles deviennent habitables donc on a on a investi la l'habitabilité de ces zones la te loolu mën na aider à désengorger à désengorger Dakar et à créer de nouveaux espaces yoo xam ni ça peut permettre léegi d'augmenter l'offre de logements qui sont disponibles et c'est en augmentant l'offre de logements disponibles qu'on va réussir à équilibrer le marché. Et bu ñu équilibrer automatiquement les prix vont commencer à se Et quand le prix du logement le loyer aussi va se parce que le loyer émane à un lien ombilical avec la valeur de la maison. donc bu ñu fexee ba offre kër yu bare. aussitôt les revenus locatifs tirés de l'exploitation de ces maisons là et comme ça ñu ngi jouance la loi de l'offre la demande danañu mën a juguler le marché faire en sorte que se stabilisent mais boobu c'est un travail. à long terme, à moyen terme, qu'on va engager à partir maintenant de, de, à partir de maintenant. Je pense que euh, au niveau de, de cette loi-là, on a annoncé la création de, de l'organe de régulation. Je pense que toute cette réflexion-là, effectivement, est prévue pour être euh, menée ñu def ko ci kuréel boobu nga xam ne moom la état bi di mettre en place mooy kuréel boo xam ne tey moo war a ëmb lépp li xam ne mooy xalaatu affaire loi yi organiser ko organiser application kii bi euh, euh, décret bi. def en sorte que ñi respecté ko. ensuite xalaat xalaat boo xam ne dina mën a jur solution bi xam ne dina permettre Sénégal yi ëllëg si biir ñu mën a am des logements un au Sénégal au ci axe Dakar Thiès Mbour bi nga xam ne mooy le des activités économiques de la région de Dakar loolu bu ñu ko amee dinañu élargir li nga xam ni yokk li nga xam ni mooy mooy kër yi te kër yi bu yokkoo njëkk yi baissé parce que plus de marchandise bi bare plus njëkk yi di wàññeeku. c' est plus di raar. Mm-hmm. plus njëkk yi njëkk yi njëkk yi njëkk yi njëkk yi di. di a di gën a flambé. c' xam ne moom la ñuy di espérer daal pouvoir le faire rapidement. bon xam nga euh, logements sociaux jëm naa ak yooyu mm-hmm. euh, euh, je pense que état du promoteur immobilier. Mm-hmm. ku nekk dafa comme orchestre rek ku nekk day Euh, je pense que ci ci ci ci ci au niveau de Diamniadio l'État dafa créer lu ñuy wax euh, un cadre incitatif c'est-à-dire que créer un cadre boo xam ne war na permettre aux acteurs de l'immobilier de se lancer dans des dans des dans des opérations yoo xam ne boo aboutiree dina mettre sur la sur le marché des logements accessibles au plus grand nombre. bon maintenant euh, sont quand même euh, il faut pouvoir organiser tout ça et puis. la commercialisation du financement yooyu yëpp j'imagine que ils sont en train de ci loolu yëpp gis naa ni euh, actuellement dans la de Diamniadio il y a des projets qui sont en train se faire euh, projet immobilier nag du loo xam ne dafa yomb tamit waaw il euh, le temps de la conception il a le temps de la recherche du financement am na temps aussi recherche clientèle pour mën a commercialiser le bien il faut aussi que zone yi nga xam ni mooy nouvelle zone ñu koy aménager pour dafa def de nouveaux projets il faut mu ak ay infrastructure pour rendre zone yooyu habitable maanaam il faut mu am ay tali am ay ay ay ay ay euh, transport en commun il faut mu am ay ay hôpitaux ay écoles euh, des lieux d'emploi loolu dafa nekk un ensemble de facteurs yoo xam ni mooy permettre de créer de nouvelles zones Donc, au départ, il faut identifier le site, mais ensuite, maintenant, il faut créer les conditions de l'habitabilité, cest dire développer tout ce qui constitue donc, les, les, d'accompagnement qui accompagnent euh, de ces zones-là pour en faire des zones. Aujourd'hui, nous avons un intérêt pour d'info. Voilà, donc vous voyez, le terre va quitter Diamniadio pour aller à Dias, vous continuez, il y a des routes qui se font. Je pense que incite aussi les, les acteurs économiques à aller s'installer dans ces zones-là. mais nit ñi fu ñu amee fu ñuy liggéey mën fa accéder mu am école hôpital et tout ce qui c'est de nouveaux espaces urbains qui se créent et après les choses vont se vont se vont se développer. régler le problème du financement. waaw fexe ba que euh, banques yi aussi mën a. Euh, mën a mën a mën a mën a adopter des taux d'intérêt yoo xam ni c'est des taux qui sont qui sont qui sont quand même supportables ah parce que c'est vrai que ont aussi ñoom seen ay contraintes parce que la banque centrale ils sont obligés de prendre des taux yoo xam ne c'est des taux qui leur sont imposés mais je pense que euh, euh, problématique financement bi nekk na loo xam ne aussi il faut ñu boole ko ci xalaat waaw puisque plus le taux d'intérêt baissé mën na aider à à réduire aussi le coût de logement te bu ñu réduire le coût de logement on réduire aussi le coût de le coût des loyers ensemble boo xam ni ku ci nekk daal war nga am loolu coono tuuti ci mën a ku ñu jëm a dese loolu lépp xam ne c'est toute la filière qui va pouvoir donc de de l'effet de masse bi nga xam ni dañu susciter la la de xam nga euh, loi décret tout ça c'est des c'est des c'est des c'est des mécanismes de de prise de décision c'est le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire loi loi qui s'est faite par l'Assemblée nationale avec une procédure de discussion et tout ça. Ensuite, euh, le décret, c'est le pouvoir exécutif qui prend la décision. Maintenant, le gouvernement a le choix de prendre un texte de l'amener à l'Assemblée pour le faire voter, pour le prendre sous forme réglementaire. Mais l'autre, il faut beaucoup qui n'ont pas décision de l'Union pourquoi. Ça, c'est du pouvoir discrétionnaire de l'exécutif. Peut-être que euh, le motif, le décret, euh, en général, on le prend quand la mesure est urgente et qu'on on a besoin de le prendre tout de suite pour faire face à une situation exceptionnelle qui nécessite de raccourcir les délais. Mhm. À l'Assemblée nationale, il y a des débats, il y a des délibérations, il y a des choses, la procédure est Peut-être c'est ça qui a, qui a, expliqué que le, le, le, le pouvoir exécutif a décidé pour la non pas d'aller vers la loi, mais Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en opposition avec la loi. C'est-à-dire en conformité avec les lois existantes. Ah, Parce a toujours un, un, de la semaine juridique qui fait que les textes en convention les uns et les autres. Donc le choix du décret ou de la loi relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État ou de l'exécutif de façon générale. Mais je pense que euh, ci cas bi euh, peut-être que c'est le texte a traîné, les gens attendent, il fallait aller vite et je pense que peut-être ils ont estimé que c'était mieux de prendre le décret. Mais du point de vue euh, de de de des bailleurs et des locataires euh, autant la loi est opposable autant les décrets et opposables donc euh, ça du am impact tellement euh, sur euh, sur sur sur nit ñi de façon générale mm-hmm. c'est juste dans le dispositif général que mais je pense que aussi ñi jël décret bi saytu nañu ba xam ne décret bi c'est en conformité avec les textes précédents parce que sinon mën na nekk loo xam ni ça peut être problématique. waaw léegi nag les juristes vont regarder de très bon mais moi je ne suis pas moi ñun ay maçon la ñu quoi ñun ay ay ah euh, sur le <laughs> compétence là. on va laisser chacun faire sa réflexion. Mm. mais du point de vue des acteurs euh, le décret. la loi yëpp euh, c'est des c'est des c'est des dispositions euh, juridiques qui sont tout à fait opposables. peut-être loi bi jël nañ ko c'est-à-dire la loi de 2014 effectivement euh, n'a pas joxewul résultat yi ñu yaakaaroon ci moom. parce que effectivement application bi demoon na ba indi ay jafe-jafe mais loolu tax na mais je ne pense pas que. caractère loi de règlement euh, justifier loolu je pense que loi bi elle a été elle a pas eu de succès parce que euh, il y a beaucoup de considérations considérations yooyu sax je pense que euh, la nouvelle disposition bi nga génn nii tenir na compte beaucoup ci kii yooyu ci ci ci les de la loi de parce que am na essayé on que ce décret là intégré na ay préoccupations yoo xam ne wax nañ ko intégré na aussi euh, prise en charge des problèmes et des errements yu amoon sur la loi de 2014. am naa yaakaar ni euh, texte bi euh, mooy am des impacts beaucoup plus forts que la loi de 2014 parce que véritablement on a senti l'effort que l'État a fait pour trouver une situation de consensus entre les bailleurs et les locataires. préoccupation aussi bien des locataires que des bailleurs, parce que c'est des, des, intérêts totalement opposés. Mais on a senti quand même cette volonté de concilier les intérêts des uns et des autres pour trouver une solution bon elle peut être applicable. Ah. ah oui, c'est clair, parce que parce qu'effectivement, ils n'ont pas tort de dire ça, parce que parce qu'effectivement, euh, c'est le revenu moins baissé. Mhm. C'est le revenu moins Donc c'est moins douloureux que cette fois-ci mhm. mais c'est toujours problématique waaw la baisse est toujours problématique pour le pour le propriétaire ça il faut le dire. Mm-hmm. parce que boo xam ne aussi bon euh, investir nga euh, tu as surtout ñi nga xam ne ils sont passés par le système bancaire ils am am war a def face à des échéances de remboursement. Mm-hmm. Euh, jëloon ay engagement ak banques yi pour fay seen loyer de façon régulière mm-hmm. maintenant ils se retrouvent avec un revenu boo xam ne wàññeeku na. il est clair loolu dana poser un problème. bon de l'autre côté bi aussi euh, am na ñoo xam ne si ils ont investi ils ont des revenus locatifs yoo xam ne mooy seen revenu principal revenu boobu baissé na. donc day mel ni que ñu wàññi salaire am dañu poser un problème. mais de l'autre côté aussi il y a des Sénégalais qui sont là. qui travaillent et qui ont besoin de se de pouvoir euh, mm-hmm. qui peuvent pas aussi jël li ñu xam yëpp def ko ci loyer. Mm-hmm. donc mu nekk problème boo xam ni c'est c'est assez c'est c'est assez sensible on est tous des Sénégalais mm-hmm. et il faut faire en sorte que ñu mën a euh, ñu mën a régler le problème. sans sans en créer d'autres. waaw mmh. donc c'est un exercice d'équilibre boo xam ni. on c'est pas c'est pas c'est pas évident mais je pense que kuréel boobu ñi nga xam ni mooy Konarel euh, état bi état bi place je pense que sax démarrer wul ces activités parce que c'est pas encore structuré. Mmh. mais je pense que ci biir kuréel boobu ñu bu ñu toogee tous les acteurs boo amee vraiment la volonté euh, de trouver une solution définitive et d'élargir boobu concertation ñu surtout ñu approfondir ko dem. xool véritablement au fond yan acte la ñu war a poser yan solution la ñuy poser mais pexe mën na am moi je suis optimiste de ce point de vue-là s'il a la volonté euh, d'une réflexion élargie et concertée hein, sur des thèmes yoo xam ni ça interpelle tout le secteur mais je pense que on peut trouver des solutions pour pour, pour, pour atténuer véritablement le, poids du loyer dans le revenu ménage autant le poids de loyer que le poids de l'immobilier de façon générale parce que man du ma euh, loyer ak valeur parce que pour man c'est bien xam nga euh, très souvent on commet l'erreur di le loyer par rapport à la construction or boo seetee le facteur bi nga xam ne mooy impacté le plus tey c'est le terrain c'est le terrain terrain ñoo yokku plus vite que la construction terrain bi mooy sur la valeur de la maison. aujourd'hui quand tu viens la VDN un million le mètre carré sur la la terre principale. tu achètes un terrain à cent millions nga jël vingt cinq millions pour construire immédiatement la maison coûte cent vingt cinq millions. donc le problème le problème ce n'est pas la construction c'est la valeur de l'emplacement. c'est la valeur de l'emplacement qui est problématique c'est le terrain. situé dans certaines zones donc tu as raison de dire et ce que tu dis là c'est tellement xam nga moom la américain yi wax ne la immobilier c'est trois choses number one location number two location number three location c'est l'emplacement immobilier lu dara lu emplacement donc le phénomène du zonage kenn mënu ko occulter kenn mënu ko ignorer dans l'appréciation de la valeur des maisons à la parce que loolu mooy nekk la chose la plus et je pense que loolu on va en tenir compte dans le cadre de la réflexion bu ñuy mën au niveau de de de kuréel bi nga xam ni mooy mooy mooy ëmb léegi xalaat loolu yëpp te ci biir loolu bu ñu waree solution je pense que le zonage dina intervenir pour que ñu mën a trouver les moyens dans chaque zone buñ ko analyser mun a xam yan solution la ñuy trouver pour zone boobu spécifiquement pour mën a dañuy euh, wax la surchauffe immobilière dans ces secteurs bon il faut d'abord ñu xaar ba ba ba ko en place. d'accord ba structure mais ci li ma xam ci kuréel boobu. Hmm. mooy euh, kuréel bi dina dina intégrer les acteurs. normalement dafa war a intégrer tous les acteurs bu changement amul je pense que acteurs yëpp ba nga ko élargir ba ñu war a bokk ci kuréel bi yëpp ñu dugal ci ñi nga xam ne am na ci xam-xam yu màcc yëpp ñu boole leen ci ensuite ñu jël ay thèmes yoo xam dafa nekk ay thèmes yoo xam ne mooy li nga xam ne moom mooy intéressé secteur bi ñu mën ci def une une réflexion boo xam ne réflexion bu takku la je pense que bu joué rôle boobu ak la volonté de trouver solution dina ma nekk loo xam ne dinañu mën a aider à pouvoir prendre en charge le problème de ce Si véritablement euh, on donne à cette, à cette structure-là le pouvoir nécessaire et les moyens euh, pour pouvoir à cette, la réflexion kuréel boobu rôlam dafa war a réfléchir dafa war aussi peut-être servir de médiation. maanaam si loolu information xam nga euh, tout à l'heure wax naa la ni euh, locataires yi ak bailleurs yi du ñu am contradictoire donc du ñàkk moo am ay jafe-jafe ay ñàkk déggoo ak mel donc ñooñu ci kuréel la ñu ñëw ñu jël en charge le problème jox leen les informations et aider leen à trouver des solutions pour éviter di ñoom ñu engorger les tribunaux parce que loolu yëpp ci ñàkk déggoo mmh. bu waree demaat tribunal ñoom danañu dem dañuy sonn parce que y' a y' trop de choses en y' a trop de conflits en perspective yoo xam ni mën nañoo engagé ci biir ñoom. donc kuréel bi aussi war na mën a jouer de médiation nekk aussi jouer aussi le rôle d' information et de conseil. pour pouvoir aider quand même aussi les uns et euh, de, de conciliation xam ne moom la ñu war vraiment privilégié par rapport a la solution contentieuse bi nga xam ni pour man bon il un mauvais arrangement qu'un bon procès. Mm-hmm. waaw defe naa ñàkk waxtaan moo am mais bon euh, déggoo am entre bailleur ak locataire parce qu'ils sont obligés de de de communiquer et de conjuguer. voilà mm-hmm. merci beaucoup maa ngi lay gërëmaat encore ci ci ci seet mm-hmm. euh, la sant di la di la encouragé ci liggéey bi. Euh, di xam ni ñun au niveau de national des experts du Sénégal on est toujours là disponible ah suñu kuréel bi nga xam ne mooy un organe boo xam ne composé de service justice ah vraiment ak des personnes nga xam ne seen xam màcc màcc la ci ay secteurs yu ce soit le domaine de l'immobilier fiscalité euh, domaine euh, industriel ak secteur yu bëri daal loolu la chambre bien structurée pour accompagner aussi bien l'État les investisseurs et les tribunaux à chercher des solutions pérennes sur tous les de l'activité économique merci beaucoup voilà comme ni ngeen c'était Mamadou Lamine Sarr. le président de l'ordre des experts immobiliers au Sénégal moom lañ daloon ci mission avocat waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy les nouvelles mesures yi nga xam ne le président de la république Macky jël na ko ci wàllum location bi donc pour wàññi location bi donc dégg ngeen li nga xam ne moom la ci wax donc ci cause yi ci solution yi ci li nga xam ne mooy suivi bi donc yooyu yëpp ñëwaat ñëwaat na si mais nag mi ngi wax ci leen li maanaam li nga xam ne mooy location bi donc li nga xam ne mooy le président daf koy jël donc ay solution temporaire la cest ay simi solution yoo xam dañ koy jël donc pour l'instant te donc li nga xam ne moom lay xalaat di ko wax mooy à chaque fois donc nañu avancer li nga xam ne mooy réflexion bi gën a pousser li nga xam ne mooy solution yi parce que nag war nañ toll foo xam ne solution définitive amoon na fi réglé wul dara amaat na fi est-ce que dina réglé dara donc yooyu yëpp ay question la yoo xam ne ñu ngi koy posé kon boog li ñu war a def mooy pousser li nga xam mooy la réflexion ba affaire u loyer donc dañ koy réglé l'accès à l'habitat je pense que loolu solution la boo xam ne mën na réglé li nga xam ne mooy location bi nga xam ne ñu ngi koy koy dund donc voilà tey lii lañ leen andiloon ci seen émission avocat on était avec Mamadou Lamine Sarr président de l'ordre des leen jox dig daje incha allah lundi prochain encore une fois sur la 7TV même